mbokk yi ñuy seetaan ci jàmbaar news mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak euh, mbégte comme niñ leen koy defalee saa nañu toog un grand promoteur muy Ibou Laye production vraiment mu fas yéene dugg ci saison bi ren waaye indi na combat yoo xam ne askanu làmb ñoo ko soxla buñ leen indilee ku mel ni Diène kayre expliqué leen digganteem ak Zarko nga xam ne combat boobu combat njarndeem rawatina mu jël Mor Kankang boole ko yuusu nduur boole ci yeneen xale gis naa keroog mu jël Frambeur ah, taftal ko ak booy bi nga xamante ni mooy eh, réparé deux rakk Marley mu nekk combat yoo xam ne combat yu neex la dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi ñu wéyal waxtaan Ibrahima maa ngi lay ziar bu baax. waa jili ñu ngi lay delloo ziar di wax asalaamaaleykum wa ñu ngi nuyu sénégalais yëpp wax gannaaw ba ñu sant yàlla julli si bi ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan suñu papa yàlla xare ko àjjana jikal ko ay bakkaaram te yërëm ko. di ñaan suñu yaay mi des ak ñun yàlla may gudd fan ak wér ba mu fekkee njëriñ yëpp incha allah di nuyu mbokk yëpp di nuyu waa ndar di nuyu waa dakar di nuyu parcel 1 ba 26 di nuyu cambérène ngor wakaam yof ñu ngi nuyu ñëpp daal waaw di nuyu suñu sëriñ sëriñ bay si abdou aziz di nuyu waa tuayon yëpp di nuyu xalifa bi di nuyu sëriñ moustapha si di nuyu maam maodo di nuyu maam abdou ñoom soxna Fatou seek Marème Seck ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. Ibrahima ci làmb lan moo la dugal ci làmb ak lan nga xalaat ni dem nga ba mën a sol mbubu promoteur nga ñëw tëggal xale yi. waaw làmb moom dafa nekk benn frise bu nekk suñu boo xam ne yàgg na depuis ñu nekk xale. xam nga ñun Ousa Sow lañ dëkk topp sax temps yi nekk booy xam nga Ousa moo fi nekkoon boobu ay ñoom Papa Sow yëpp seen bëri fësagul woon quoi chaque ngoon nañ daan dem géej parcelle jàmmalaay di seetaan usa entraînement xam nga dem si mbappat yi mbappat unité 18 yi mbappat unité set yi comprendre nga noonu daal lañ def fi su làmb topp ñu xam nga ñu bëgg làmb bëgg simb temps booy rek xam nga yaa gën a xam loolu moo loolu moo amoon quoi jamono jooju noonu làmb ak simb ñoo fi lëmbee woon xam nga ñu bëggoon ko trop par la suite bon si lañ xamanteeg euh, Modou xam nga ànd ak moom xam nga ànd ànd bu rafet tamit dem ba ibulaay ibulaay daal waaw lamb daal moo tax tey nit ñi xam ko te tamit tey lamb jooju nit ñi xam tax ba ma am inspiration tamit ñëw nekk promoteur mu nekkoon lu ma yàggoon bëgg a def dama koy yàgg dama koy wax souvent projet bu ma yàggoon bëgg a def la mais bon xam naa yàlla si 2000 année 2023 bi la ko la ko dogal dal hmm. année 2023 bi la ko yàlla dogal d' accord mais Ibou Laye dañuy gis ni promoteur à d' buy dugg ci day commencé ci combat yu ndaw mais yow da ñëw rek lancé ci combat bu mag kan moo ne ci ginnaaw Ibou waaw balaa bu ñëw si question bi ma profité di nuyu waa jàmbaar news fa laa war njëkkee sax xam nga di nuyu waa jàmbaar news ak jàmbaar production ak jàmbaar wécherie académique di nuyu président bi suñu maam Père Ba xam di nuyu doomam Mansour Ba di nuyu Papa Sow ak staffu jàmbaar bi yëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar di wax jàmbaar production ak Ibou production sotti la ak def si. waaw tey parce que boo xoolee yor combat yi ma taxawal yëpp parce que mën naan Papa Sow moo ko taxawal parce que man moom ñoo si waxtaan su bàggoon guddeeg bëccëg moom naan bii baax na bii baax na defee bii defee comprendre nga donc maa ngi nuyu sànq. moo ne ci ginnaaw Ibulaay ba mu ñëw rek tëgg combat yi. waaw combat euh, nekk ci ginnaaw Ibulaay moom xam nga fii moom koo fi gis rek dañu laa pousse nga nga tàkk xam nga li ma expliqué donc koo gis rek loo gis rek am na projet am na staff am na li xam nga. am naa staff am na ñu may liggéeyal mais comme li ma la wax rek affaire bi sama ambition la sama bëgg-bëgg la loo xamante man maa ko sama bopp comprendre nga mais teewul am na ay partenaires waaw ah, yooyu moom c'est une vie privée quoi loolu moom garaawul quoi mais ah partenaire am na ay partenaires yoo xamante ni bëgg nañu am doole nag bëgg nañu am doole waaw. Ah. boo ñu doon euh, ku mel ni Zarko ak ak ak Diène Kairé bi ci ñaata million la toll. waaw combat bi moom budget bi budget bi budget bi moom ay millions la de xaalis bu weex tàll wax dëgg yàlla budget boobu boo boole woon ñaari boo boole woon ñaari somme mbër yi vraiment investissement la si nit nga mën a démarrer sa projet lu bëre quoi tey bu am na ñoo xam ne buñ leen ko joxoon mën nañ am départ yu baax yoo xamante ni fii léegi diwén mën nañ si gis seen bopp donc tey buñ ko jëlee def ko si jeunesse bi nga xam ne kon ambition la ak bëgg-bëgg waaw di wax di wax rek millions yi bare na mais nag di ñaan rek yàlla defal ñu si ndam ba ba tamit millions ñu si def tamit xam nga ñu gisaat résultat bi rek incha allah. millions bari na ay trente quarante quarante cinq cinquante. soixante non combat boobu moom booy xool budget bi ci combat bu demee bañ toll ci ba ba combat taxaw yeneen mbir si topp taxaw kooku da ngay da ngay egg presque cent millions. waaw ah oui booyagul tamit di nga ko jege trop quoi. Hmm. macha allah euh, ci loolu la ñuy ñëwee xuus ci mbër yi nga xamante ni da ngaa dëkk ak ñoom. ku mel ni Tafa mbar dëkk unité 20 nee na nga dëkk unité 20 démb ñu jël ko mu def benn sortie jëmale ko ci yow euh, bi ngay tëgg tëggoo ko loolu sa xaalis la bàyyi na ko yow mais li nga ko doon proposé pour moom mu def ko est-ce que Ibou war na mën a def loolu. noo xam nga Tafa fi mu nekk nii moom day waxee day waxee tàngaay comprendre ak ak xëxët mais tamit xam nga lu munti am rek Tafa suñu ko quoi xam nga. tey am na droit am lu ko métti mu génn wax loolu garaawul quoi Tafa ñun du ñu nekk fi di tontonteeg Tafa ci ay wax ay détails yoo xamante ni xam nga loo xamante ni pour man daal benn affaire la boo xamante ni ñoo bokk suñu benn koñ war nañu mën a dugg ci néeg lijjanti ko quoi pour man du ma topp Tafa ci ay presse muy wax fii may wax fii surtout surtout si beneen domaine bu muy wax affaire yooyu affaire bu dee si affaire lamb moom dinaa ko ci tontu quoi affaire lamb bi moom dinaa leeral nee na du politicien man tamit du ma politicien donc benn affaire bu ndaw la rek boo xamante ni moo ñu liyee si affaire boobu ba réeroo am si moom gisewul fi ma gisee man gisewu ma fi mu gisee donc jarul ñu si nekk di chaque fois di si wax di si wax am na loo xamante ni mën naa bàyyi magu intervenir magu magu parcelle intervenir comprendre nga ak ñi si war a wax parce que tamit ñu bële mu ngi si interpellé donc Tafa du ma ko duma ko topp si loolu Tafa ak lu mu mënti wax dafa sama rakk la lay mës a doon. comprendre nga tey làmmiñ ak bëñ ñoo ànd quoi comprendre nga problème mun na am mun nañ ko waxtaan à l'amiable am problème man su ma defee erreur ma xam ne maa def erreur dafa bu def erreur ma xam ne moo mais rafetlu ma ñuy génn ci presse bi dafa bu waxee tey ma wax suba du jeex day wax may wax rek loolu amul sens dafa sama rakk la xam nga mun naa ni topp na xëy na tàngooru yaramam ba wax ba waaw. Ibulaay sa rakk la lan moo tax sa rakk boobu bi ngay tëgg làmb njëkkee woo ko ci moom ndax loolu bokk na ci li ko li ko gën a merloo mais nee na loolu sa xaalis la yaa moom la. <laughs> non xam nga Tafa dafa juum man ci koor lañ nekk. billaahi wallaahi taalaahi barke alquraanu karim avant may waxante kenn affaire làmb kenn laa la wax kenn kenn kenn dafa mbër laa njëkk woo. dëgg xam nga dafa am kañ la mujjee bëre lu mu tombé la lan la fàtte nga date bi. waaw kon mun naa la exemple ñu dafa am moo gàmmu gee ba ñu bëree ba ci ëllëg si man mën naa ne bokkut si njëkk woo dafa am yàlla rek moo tax mooy wax caméra moomu tiim sénégalais ñu ngi may seetaan. du du ay wax sax ay tontu mais damay leeral rek quoi parce que Tapha Mbeur dafa wax dafa wax côté boobu loo xamante ni côté boobu mën naa ci wax parce que Tapha ngi ci làmb maa ngi ci làmb mais comme que fële côté mu benn affaire bu ñu ci boole woon rek mu am réeroo loolu garaaw mën naa ko effacer mais ji moom mën naa ci tontu leeral tamit mu leer ci bopp Sénégal yi leer ci bopp waa Unité 20 Tapha laa njëkk woo balaa may woo benn mbër ma woo ko dalal ko xam nga euh, defal ko. xam ne xamal ne ko làmb noonu la préparé nga indi nga état indi nga lii mais peut-être nii ak nii ak nii xam nga ñu waxtaan. man ko léegi man nag maa ngi dugg ci affaire bi ah maa ngi dugg ci affaire bi instant bi li may lay wax di sax bëgguma mu mu génn fenn entre man ak yow. comprendre nga su ma soñoon daal man dina am sa combat quoi ma njëkk la ma njëkk la kii xam nga. mu a ma woy man kay ñu waxtaan ci quoi. ñu ci waxtaanee mu proposé ma ay mbër. bon bi ma proposé ay mbër ma nga bon mu propose ma ay mbër xëy na bon mbëri moo proposé tamit jarul ma koy wax fii mën naa ne tamit loolu tamit. côté côté prix non boobu ñàkk a ñëwagul mais sook si la bokkoon. waaw sook ma tontu ko si ma ko sook comme ko def na déclaration bi te sook déclaration bi nii ah dafa xaw dugg si man quoi sook moom xam naa ni jarul sax ma ko jéemoo di ko laaj loolu xam nga li ma la expliqué. léegi mu wax ma ay mbër te bu wax dëgg rek neexee yàlla. que du jot nga leeral mbër yi. ne wax na ma diw ak diw ak diw comme ci phase leeral. non Tafa daf ma laajoon euh, daf ma laaj euh, Sokh. wala wala kan Sokh ak kan la mu wax Sokh. wala Sey Alioune Seya. Ah? waaw Sokh Alioune Seye ak kan. Marley. comprendre nga. bon bi ma waxee loolu. ma démarché loolu ma ne ko ma ne ñi nga bëgg bëgguñu la. wax dëgg yàlla. absolument ñoom ñooñu duñ bëreeg Tapha Mbeur. non non ñoom duñ bëreeg Tapha mhm. ma non instant moom xam nga rek sam booy moom xam nga instant moom dañu bëgg mu am combat parce que tamit dama sonn ci booy chaque fois maa ngi ci booy xam nga nii la lay indi te te gàmmu laa bëre gis nga combat ba ñu bëre ni mu métteeg affaire yi xam nga. ma koy xoolal di ko xoolal di ko xoolal di ko xoolal ba caat daaw dafaal bëre bu caat daaw dafaal bëre ba pare. malam dem toog ci wetu ci wetu plateau bi ñu interview chat Daouda Fall boobu maa ngi fa toog man pour ko Tapha Mbeur Thiat Daouda Fall barke alxuraan ko dama lay wax ni Moustapha Faye tafa Faye mooy so mooy ànd ak Tapha Mbeur ci gàllaaj mi ngi sama ginnaaw mook sama jumul moom ma njaay top ma nekk fa pour ko pour jéem a gëstu ndax booy dinañ bëgg Tapha Mbeur booy di wax may may may interroger seen seen supporteru chat euh, boobu Thiat Thiat Daouda Fall comprendre nga ñu naan non bëgguñu Tapha Mbeur ñu xam di wax quoi ñun xam bu booy soog a daan da nga yéeg bàyyi mu sedd pourtant jour boobu bi may ñibbi man ak man ak booyee mi ñoo ñoo ànd ñu waxtaanee loolu comprendre nga Tapha Mbeur bi ma demee woon na ma ni ma sama booy expliqué na ma ne yaa doon jéem a laaj foofu Thiat Daouda Fall affaire affaire mais moom après mënu ma moom Thiat Daouda Fall gënalu ko quoi comprendre nga gënalu ko aussi man bi ko moom bëgg na Tapha Mbeur man dama ni la ba teel a lan ba quarante huit di def wala boog ma ne boon vingt quatre la ba vingt quatre heures Tapha Mbeur di def interview ak koor yàlla bi billaahi wallaahi taala bu ne woon su mu ne woon mag caat daaw dafaal pare na avance mi ngi tege. boobu kon kon ngi doon tege boog laa la bëgg a wax. parce que instant bi comprendre nga dëgg rek la lay wax barki alxuraanu karim ma waxtaan seeg Thiat Daouda Fall Thiat Daouda Fall moom ni bëgg na Tapha Mbeur ma xool Tapha Mbeur ñi bëgg ñëpp mënuñu bëgguñu bëreeg moom ma interpellé ko maintes fois à la fin ci la ma la wax tonnerre te kañ la ma ñu dajee fii man ak moom unité 3 sur cinéma bi boobu maa ngi ci moto xaaral ma des ci sax sama seede la moom mu supporté woon ma gis ko rek. ni ko xarim taxawal taxawal taxawal dama soxla Tapha Mbeur urgent mu ko Tapha Mbeur Tapha Mbeur ñu tax ma taxaw ma wàcc moto bi ñoo dem sama ñu nuyonte kaf man moom fu ñu gisee dañuy songante sax xam nga palakante mooy loolu quoi ma ne ko boy Tapha jàppal si jàppal ci kii ca Daouda Fall nga ñu taxawal combat bi billaahi wallaahi taala iwuno ibulaay booy boobu moom c'est-à-dire damay tourné waat ñëw si booy jóge si booy xam nga boo jóge si caaw da Fall kuñ lay waxaat ay ñaabu ndaw ay affaire xam nga donc damay desaat ci booyu quoi man daal je préfère léegi utal ma tonnerre comme daan nga utal ma tonnerre bon après mm, ma ne kon vraiment nag Tafa bëggul caat daaw dafa comprendre nga parce que wax naa ko ci fulla quoi wax na ko ci njëkk ca nga te man tamit vraiment man combat bi ma gënaloon man mooy Tapha Mbeur Thiat Daouda Fall. parce que yow tamit yaay bailleur bi yow ya am droit jël sa xaalis fay combat bi la neex mais pas mbër bi moo lay imposer ki nga a. waaw waaw waaw loolu la quoi aussi comprendre nga man li ma gënaloon man mooy Tapha Mbeur Thiat Daouda Fall comprendre nga am na benn mois boo xam ne sax bi Thiat Daouda Fall bañee parce que ñoom ñaar produit yëpp bëgguma leen perte bëgguma perte Tapha Mbeur perte Thiat Daouda Fall Thiat Daouda Fall tamit dem naa bay proposer Anaconda mais moom tam à personne nee na ma parewul Anaconda mais bu dee Tapha Mbeur il est donc ma xam ni fii baaxul fii baaxul comprendre nga léegi Tapha fii laa jaar ak moom ci wàllum taxawal samay combat tey Tapha Mbeur ni adversaire yi ma bëggoon mu bëreek ñoom moom bëgg na kon tey am na combat yu ma tëgg yoo xam ne doo leen dégg barke alxuraanu karim billaahi wallaahi taalaay papa saw su ma papa saw mën na ma seede ñu nekk ak man sama entourage di liggéey ak man si affaire combat duñ duñ mën nañ ma seede xaaral am da sekk mën na ma seede ñu bëri mën nañ ma seede si ñu may doxal sama affaire combat barke alxuraan karim ba si as ménagère na ma seede nit gis ni da nga ko bay boycotté quoi parce que dëkk ak moom waroon ko mën a jàppale jàppale ko dem tëgg ay jàmbur te moom aussi li nga expliqué nii moom est-ce que comprendre na ko. billaahi laa la waatal waat bi sax jarul muy hmm. njëkk waxanteel sama programme làmb xam ak kan mu mu Alvin. Hmm. mooy beneen booy bi nga doon interview mu toog moom. Hmm. wax ma ko sol lu weex li de am na mu mooy sol kab bi. mu Alvin moo tent bopp bi. mu laa si waxal lu mat 30 minutes wax si Tapha Mbeur lu mat une xanaa. kon man bëgg naa bëggoon naa tëgg Tapha Mbeur wala bëggoon Tapha Mbeur ñaar laa njëkk songo ci sama programme làmb Tapha Mbeur ak Gora Sock barke Alxuraan. Tapha Mbeur ak Gora Sock. Gora Sock bu leen neex ngeen tàll ko micro ngeen laaj ko bi mu ñëwee wax ko sama projet dama ne ko waxtaan ci adversaire ma propose ko Jackson. Jackson Gora Sock bëgg Jackson. ma woo Jackson. Jackson ni ma waa baax na naa ko may mu waxtaan ak ay mbokkam bi Jackson buñ toogee deux jours Jackson tamit rappelé waat na ma ne ma vraiment daal waxtaan na ak estafam mais xam naa góor gënalu leen quoi ma ne kon gënaawul kon man am naa yéene wala aw ma yéene mais man Tapha Mbeur tey man bëggoon naa ko tëgg wala bëggu woon tëgg te Tapha Mbeur ba keroog muy def interview bi man sama projet Tapha Mbeur mu ngi ah si ba keroog bi def mais yàggul dara man Papa Sow ñu ngi ciy waxtaan tey am na benn mbër bu bu bu woo Papa Sow spécial ni ko ni ko ni ko ko jox ma booy bi Papa ko non li ngay laaj dafa cher parce que mu ni ko non gars yi ñooy bu ko buñ woon Tafa dina ko. Alxuraanu Karim Tafa Mbër bëggoon na bëgg na kooku hmm. waaw ma Papa commencé woon nañ si démarche di waxtaan. comprendre nga man papa yow léegi da koy jël wala ma jël ko wala xam nga man papa moom noonu la ñuy doxee si làmb quoi comprendre nga noonu la ñuy doxee parce que comme que adversaire bi moo woo papa Sow kon maag papa foo waxtaan si quoi mais man dafa mbër sama sama sama sama plan de kii la bokkoon. la bokkoon su ma ko déggee kon génne nga parce que Tafa Tafa ak quoi qu'on dise fii dara mënut fi am te toog amul toog amul waxtaan amul am na loo xamante ni am na loo xamante tamit boo ko defee day mel ñàkk fayda tafaa man tafaa man sama rakk la am na loo xamante ni tey li ma ko waxoon mu koy bañ mun naa ko waxaat mu koy dégg am na loo xamante ni man moo ma téléphone ñu waxtaane ko su ma juumee man ko tafaa damaa juum jéggal ma su ma bu dee moo juum man ko tafaa da juum mu ma baal ma àq. mais muy wax tudd la. moom bi muy wax tudd sax Papa ministre bi la wax yow nga génn na Papa Sow euh, Tafa Mbër mënoon na woo Papa Sow Papa Sow la te nee na yow Ibou Laye nga tudd moom bi muy tudd. xam nga man pourquoi ma ma wax si loolu moo ma yebal Papa dafa am nee naa Papa ko partagé ak man jël benn côté doxal ko bon papa papa bi mu doxalee loolu man bi ma bi may contacté bi may kii Tafa Mbër wax naa ko Papa Tapha Mbeur maa ko woo peut moom li ma ko expliqué il mal compris parce que man li ma ko expliqué du ak moom li muy wax sax c'est diamétralement opposé bokkul. ay nervi masqué nga ko doon. nervi masqué nervi masqué bon yàlla yàlla bëri na sutura xam nga domaine boobu bëgguma ñu xuusaat si muy am ay tontonte mais d'ici quelques jours yàggatul dara lu sax mat weer dinañ xam ndax loolu nervi max la comprendre nga wala réalité la incha allah. comprendre nga côté boobu bëgguma ñu si jokkalante man ak moom muy wax fii may wax fii te xam nga jaru ko quoi comme li ma la wax rek booy bi sama booy bi sama kanam la màggee comprendre nga am na loo xamante ni xaju foo quoi interview la dëkk interview laa dëkk. mais boo seetaanee mu wax ba attaqué la. ban gis-gis nga ci am boo ko seetaan en tant que sa non mais en tant que sama rak mais yow tamit da ngay ñëw nga taxaw comme taxawaay magam rek bañ ko topp si loolu mu nekk rek garaawul quoi xam nga tey moo naa fi nekk ñëw xët-xët mu yuuxu ma yuuxu amul sens amul sens comprendre nga man proposition la wax naa ko xëy na moom comprendre li ma ko expliqué moom bi mu génnee wax man giruma sax ay tontu ma dama pour man li ma wax rek comme comme man dama ko waxee quoi ni ko moom bu gisee lu ko métti si man si interview bi moon na ma woo wala nii wala nii mais du ay affaire tontu ma du ma tontu du ma tontu teg Tapha Mbeur du ma tontu teg Tapha Mbeur comme ni mu démb ni ma waxee ni ma yaa ngi may xool yaa ngi may seetaan YouTube may xool yaa ngi may seetaan jàppal ni man je suis ton grand frère te te mag laay doon ba keroog yaa ma gën a xam comprendre nga tey ak ku mënti nekk sa ginnaaw ak kuy mënti wax ma lijjanti ma loolu sama rak ngay mos doon leneen looy xeex nag kooku yow la concerné sa objectif la xeex ko loolu man ça ne me dérange pas mais boo gisee tey moo dugg ci làmb ji parce que Tapha dafa ma fu mu jaar ak moom si. làmb amoon yéene man Tapha Mbeur bëri sama premier combat. mais bi nga ko woowee. Euh, bi nga ko expliqué moom expliqué na la nga ni ko dama soxla dix personnes yoo xam ne bu ministre bi di génn day ànd ak ñoom buñ bëggee taal booy fay mu ne la man mbër laa duma wutal kenn nervi nee na lii la la toog. déedéet barke alxuraan demewul noonu xam nga tey loolu laa la expliqué soo mu poussé si loolu rek <laughs> damay mu amat mu amat ay tontu. moo mat damay bañ damay damay bu am. non xam nga Tafa. maa ngi jégalu sax parce que que nee naa du ma si waxaat ba du si wax pare quoi mais damay leeral rek. Tafa dama ko woo téléphone ma ko Tafa mu ah, ma ne dafa am benn mission bu ministre teg ci loxo Papa Sow ma ko Papa ko doxal. comprendre nga donc ministre bi mu jëlee mission bi teg ko ci Papa Sow Papa moom dafa jël mission bi delloo ko mbër yi. Papa Sow bëri na ba tekki ngemb xam nga bon xam na li nekk si ginnaaw mbër ni mu méttee quoi sonn si yow nga bëgg leen jàppale affaire yi du matee xam nga li may expliqué ma nga léegi mission bi ñu def ñun dañ ko yóbbu si mbër yi mooy que ni chaque lutteur chaque lutteur chaque lutteur bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu chaque lutteur bu ñu kii ah bu ñu waxanteel dañu bëgg nga jël dix personnes si yow moment bi si góor ñi lañ toll. góor ñi xamal la formation pavage quoi explique ko le projet bi ñu bëgg quoi parce que emploi des jeunes la comprendre nga explique tey yow côté boobu yaay leader tey yow mën nga dem si école E bi école bi nekk unité 20 nga gisante directeur bi xamal ni ko danga am projet ak euh, ministre de la jeunesse da ngeen bëggoon xool nu ñu defaree école bi def ko xam ga pavé ko xool parti yu mën a pavé xam ga def si ay banc booy ji toog genre affaire yooyu quoi fay am na ñaari jàkka gis élimaan yi wax leen dañu bëggoon pavé da nga am projet ak ministre de la jeunesse xam nga ñu pavé jàkka yeeg affaire yooyu quoi xam laan nga mu nga léegi dix personnes yi ngay indi mu nga contacter awaña parce que awaña moom am na indi na am na dix personnes te comme que violence bi moom foofu muy fréquente am na fa ay booy yu fa jël ba comprendre nga hmm. ma ne ko booy ngay jël contacter leen ndax waxuñu ko awaña parce que comprendre nga mu ne ma waa d'accord mais bi ma ko waxee lépp ba pare moom gaa li ma wax xam la ma wax non saay man taluma loolu man nga tëggal ma combat laa tal. Mm-hmm. ma ko tafaa nga ma tëggal la combat loolu du problème comprendre nga may lii dafa nekk projet boo xamante pour booy nekk sa ginnaaw la quoi loolu mën nga ko gérer comprendre nga. booy booy booy am booy am job booy nga xamante ni amuñu ci job bu ñu jàpp ak genre affaire yooyu comprendre nga. mooy loolu ma ne ko dans deux semaines trois semaines jigéen ñi ñoo ñëw ma ne ko ma ne ko mbër di jàppale jigéen ñi koy jàppale am jigéen ñoo xam ne ay fans fans club bi bokk ñooy togg ñooy def lii comprendre nga ñoo ñëw ma ma ne ko en ma ne ko bu loolu di nga ànd ak sa groupe nga ñëw am audience ak ministre wax ko projet yow. Mm-hmm. li nga xam ne yow ministre mën na la financer sa propre projet. Mm-hmm. lii laa ko wax barki alxuraanu karim lii laa wax Tapha Mbeur mm-hmm. donc mom bu né dama ko wutlo comme ay dix personnes yoo xam pour non lolu mais lima la wax ni di ma jëlaat lima la wax ni dans quelques jours di nga xam ndax lolu ay nervi masqué la wala réalité la ndax di nga gis boy di job xam nga dañu ni boy dañu tok muy dox duñu liggéey wa ba liggéey bi commencé comme ko yaa am li taalal micro man na la invité ni la jili nga ne ma mën la kay xol man la kay xol boy bi groupe bi li ñuy liggéey comprendre nga te ku ne mën na yem sa koñ entreprise la boo xam ne dinañ la booleeg ñoo xam ne ñoom ñoo lay former ñëw sa koñ non garaawul quoi comprendre nga bëgguma bëgguma si nekk di wax ñuy jokkalante. waa intervent bi nga xamante ni yéen a ko bokk Tapha Mbeur am fa nga am fa parce que réeroo amul ñàkk waxtaan am. intervent intervent dama nekk ci ASC bi ASC dental moo fa nekk président comité président comité euh, non président comité finance nek fa trésorier nek fa président comité sport nek fa vice président je suis quelqu'un là-bas kon sétane ben lenn xam ay ak ay sama digënté ak ak Je Mbeur une ko ko nangu tamit tamit ku koy jëma def tamit diko nangu tamit diko pousse li ngay def li ngay def ci yoon dañu dëgg dañu dëgg nañ bàyyi booster yi ñuy booster te ñuy rafetal mu rafetal sell xam li may expliqué jarul ko nekk fii di xiiru di ŋaayu man Tapha Mbeur fii laa jaaragoon ci affaire combat en tant que promoteur voilà. maa lay jaajëfal bu baax. waaw jili maa ngi jéggalu ñëpp tamit xam nga di baal àq ñëpp di baal àq ñëpp tamit affaire bi jarul du ay polémique yoo xamante ni Tapha day comme ni nga ko waxee Tapha day fi mu ma fee. comprendre nga maa ngi siy jéggalu ñëpp di si jéggalu interview parce que interview ñun li foofu quoi. mais nag tey dafa dafa wax démb sama rakk la tamit dafa mën ma leeral te tey bu doon da nga ñëw dégg ba fi mu kon dañu dajoo ci cant papier si waxuñu sax ci cant gi comprendre nga kon tey duñu ci wax du ma ci nekk ci tontante du ma ci nekk dara comprendre nga Tapha daal li ma koy wax mooy na jàpp ni son frère c'est mon petit frère am na loo xamante ni mën nañ ko waxtaan si néeg mais jarul jarul genre genre muy wax fii bay wax fii amul sens maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf mbokk yi Ibou Laye la ñu dalaloon fas yéene waxtaan ak moom ci ci ci làmb di leen jaajëfal bu baax di leen jox di daje ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf